télé bi ba ñu koy ubbi li tax euh, monsieur Camara Noa taamu ma ci ba teg ko ci sama loxo nee na ma sa yaatoo gën a tax incha allahu rabbi télé bi télé ñëpp la amul xajji amul seen mais bu fekkee ay côté star rek planétaire bi ndax ñi ngi ci ay projet yoo xamante ne nii bu ma ko waxoon fii léegi ñëpp danañ daanu télé bi xaar leen ni suba mën nañ leen wax ne leen am nañ benn invité bu doy waar Beyoncé wala Rihanna parce que xamu leen ki ci sama gannaaw moo tax. sénégalais yi ñu ñor te dañoo namm lu bees te dañu leen a bëgg a satisfaire parce que dëkk bi ñu nekk suñu passeport bu demee Mali fa la yem ñi nga xam ne mënuñ tukki. mënuñu wutal seen bopp visa soxla nañ lépp loo xamante ne au niveau international dañ leen koy jëlee li ñoom Dakar TV tegal leen ko te incha allah dina am télé bi nag yal na yàlla. yan bii mu ñu yen mu oyof ba mu yeggalee yeggaleeg sagoom ndax xam naa ne li ñu def ci milieu milieu télé dofuñu bay ànd ak koo xamante ne maayinu wànq la yor kii bopp bi dafa doy waar ba tax na incha allahu rabbi tele bi ki boo rombee nit mu ne la damay chemé ne ko demal ci Amina Poté xool danañ ko jël danañ ko fay te du am problème li Youssou Ndour naan duma ma ñun du ñu dàq kenn ku xas ba dugg moom rëcc nga